jógee ci loolu dégg ci ay coow loolu jàll ñu ne Papis bàyyi na ba. bàyyi naa ko kañ damaa bëgg ko ci noonu koñ bi ni ñu ma bëggee ñoom ñëpp amul ma bëggul 19. kenn mosuma du. nga daan ay doomu jàmbur doomu jàmbur daan la benn yoon nga bàyyi ngeen a bëgguloo gàcc. waaw man la kan la yow la man la mënuma ko def. Hmm? Mhm. su ma ñëwee sa kër nga toog ñànkatam hmm? dinaa lekk ndax du sama kër waaye boo ñëwee sama kër li ma togg boo lekkee boo lekkul baax na sama lekk la sama dépense la fee ñu ma daan seen dépense la waaye ki ma daan sama dépense la bëggatuma kenn daan ma. nga bàyyi. Ah, loo ci mun yow. mënuma ci dara. <laughs> Ah, waaye bu ci wax lu bëri nag. léegi Quench daan la. Papis kenn gisatu ko Papis kenn déggatu ñaan Papis ngi loolu day dafa waat ñu jékki-jékki gis Papis. Mhm. mu ne day faj. office day dafa joxe ay gàllaaj mhm. ñu bàyyi nag gëmuñu loolu. gëmuñu ko yow mi ñëw de gëm nga ko de yow mi ñëw mhm. gëm nga ko de lii mooy suñu deuxième interview ma ak yow ak Fatima Fatima bàyyi fi am fu mu jëm ba nga ni soog a sama kër fu nga nekkoon fu ñu nekkoon tontuma rek. Padois Padois des kër gu mag fa lañ nekkoon. bu ngeen pooree sama interview ak yéen Patte d'Oie Bullders woo ngeen ma téléphone Papa Cissé dañoo sonn suñu portable yi waa bitim réew yëpp ñuy woo téléphone pour am sa numéro. du dëgg wala. dëgg la. bëggee ñu waxtaan dëgg nag nga wax dëgg tamit de. non loolu dëgg la loolu kay lu am la hmm? hmm? lu ne gis naa ko ci. lu ne am naa ko ci. waaye maa ngi noppi. waaw waa koñ maa ngi nii de. oto oto day gaare fii de nit ñaa ngi dugg si de fii de loolu sonn ma ci moo tax bay fenn nag faj du ñëpp nga mën a faj ci àdduna nag di nga faj nit mu dëgër di nga def lu gën a garaaw mu yomb trop damay faj nit par exemple mu dëgër nit réer la escorteur am mosuma koo xam ñu ne maa booleeg yow mu ñëw fii ma defal ko mu ko defal mu dem ñaari fan mu ne ma gis naa sama escorteur yàlla. dalay may lii xañ na lee yàlla yenn saa mu ne la fii day neex fii neex fii neex nga de mën naa ko mu ne la ah, nag nar a tee bu nga xam ne yàlla am na. léegi balaa ñuy sooy lii nga takk nii lu mu li ma takk nii sa yoon nekku ci de. waaw bëgg a xam parce que lii boo ko xamee lu lay jëriñ. bu doon bu doon bu bu doon lekk sax. nga ne na ceeb la wala kallu la. nga xool bu la gën nga lekk ji. waaye yëfu jàmbur nga ne koy laajte. yëfu dégg naa jàmbur ci la. yëfu jàmbur dégg naa jàmbur ci la. Hmm? waxuñ loolu de dañ naa ne jabaru jàmbur jàmbur ca la. <laughs> léegi yow ban moment nga sentir ne man mii kat. Hmm. war naa mën a commencer di faj wala man mi kat war naa mën a commencer di joxe garab bi ngay bëree moment boobu loolu nekkoon na sa xel. sëñ bi may bëree ñu ànd ci làmb li ma doon def ci làmb ku gis xam ne kii lii mënul ñàkk ci moom ndax li ma doon dund ci làmbu mosuma dañ ci om loolu bëgg doomu adama nag du ma doomu ku ma bëgg a ku ma bëgg te nuyu ma la mosuma di ñàkk respect doomu aadama man Papa Liss noonu la ma yàlla bindee bari naa kër sa bëri kër sa boo xamante ne pour moom ak doomu aadama ñu xool ba teg ba sa bari wul ci ñi ma xam ne waaye nag bu ma defee bëre simple bëre simple ba taaw ci normal sama maam bu jigéen ci la ma commencé wax yéen nii. di ma wax yéen nii may gis di ma wax yéen nii ba ma xam li xew mënu ma wax yëpp. di la mm-hmm. Ali. am na ñoom Papis ah, Ali Ali Sidi Papis Ali Ali Sidi. xam nga luy loolu. déedéet Ali Gueye. surnom Papis la. waaye vrai tur Pape Ali Gueye la Papis Pape Ali Ali Sidi. Pape Alé Guèye Pape Siv nag mooy surnom bi mu nga nekk xale bu mu mus naanoon nga naan bu xaj lekki nga lekk moo tax ñu dagoon say sa baaraam sixième baaraam yi doomu aadama ñaata baaraam nga war a am ci àdduna du cinq. cinq fi ne. cinq fi ne. six fi ne nag dañ koo doon dagg nag. yeewu naa ñu wat fii xale bu ndaw la xaw ma li xew yeewu naa tëddee silib yeew yeewu awra neen mboog maa ngi caaxaan waay ah. Euh, léegi su ma su ma ñëwee su ma ñëwee su ma ñëwee ci moment bi la bi la yi feeñoo. yow kañ ñëwaatoo yegg si nga pare. waaw bi ma yegsee ci bila la affaire yi feeñoo. Mhm. naka la la dikkee ba nga mën a woo nit ñi wala boog nit ñi ñëw nga di leen jox garab wala nga di leen faj. sëñ bi bu ma affaire yi feeñoo. Hmm? ñàkkul sa koñ bi. ñu may waxal sama ginaaw kat nag problème la. damay génn. ba léegi ma wax ak yow sama jabar bu sama jabar du wax waaye bu fi toogoon rek naan su ma tëddee neuf heures sama kër balaa maa nelaw nelaw. Mhm. foog ma def quatre heures cinq heures moins. lu tax loolu. ah chef nekku ci loolu li ma àndal la rek. <laughs> non di xam da ngay toog di waxtu wala da ngay nekk ci yeneen yoo xamante ni dalay tee nelaw. su ma commencé waxtu ko dof na. nit di toog nii moom kese di waxtu. ne am na ñoo xamante dañ na Papis dafa dof ndax Papis bu toogee yi muy wax. Mm. xel du ko nangu mbër moo xamante ne bëri na ah ñu yónn ko ba ci kaw dugg suuf mu fi naan damay ñaanalaate damay joxe gàllaaj damay nangam. Mm. ñu bàyyi dañ naan Papis dafa dof ñi naan Papis dafa nangam mm. di wax ay wax yu ñaaw. mbalaa moo wax loolu. dangaa bëggoon neexal sa émission moo tax nga indi baat boobu. ñoo koy wax boo duggoon ci commentaire yi. waaw dëgg nee naa dama seetaan commentaire sëñ bi. nu ma nit mun a yëkkatee avant ma yëkkatee anu kan laa yëkkati da ngay seetaan làmb di waxal rek. yow kan laa njëkk a yëkkati. maam Balla yëkkatiwuma ko. waaw. Hmm? kii yëkkati ma du yoon. buñ la may un million boo may deux millions dafa jar wax dañ la may un million boo may deux millions wala un million c'est loolu jar na wax ah kon yàlla mënul hmm? <laughs> maye. yàlla wax léegi nag yow benn affaire laa bëgg xamal. Yawou Diagne mos na bëri grand combat Sénégal. yow ja waaw ah. de fàttaliku ma am de pourtant nag am na lu mu am aw ma ko bay wax rek wax sa diggante ak yàlla. am na lu mu am te yow amuloo na ñu may ma ay millions waaye mosuma bëri ba ñu may ma kër te pourtant Abdoulaye may na ko kër te ci làmb na ko maye. Mm-hmm. ah ah kon dof. déedéet mosul <laughs> ah, ma ko may loolu du ah kon yàlla mënu maa may dara du ma doomu aadama quoi man mbaam xuux la wala xaj buy dox la wala je suis pas un être humain. Sénégal. Hmm? boo gisee kuy wax lu ñaaw da ko bugg wala xoolul ci yàlla sa supporter nag mun na la waxal ba xool la tamit lu lu ëpp torop te fekk sa loolu sa daboo ko daboo ko nekkoo ci loolu waaye bëgg la rek moo mu waxal la ba waxal la musiba waaye ku la bañ moo lay waxal tamit ba waxal la musiba. mais léegi yow dama ñëw dégg nga wax waxi bi ngeen ne da ngay bàyyi. ñi la hmm. bëgg ak ñi nga xamante ni dañ doon dem. làmb ndax Pape Général wàccu njuub Pape Général daw rek wër supporter yooyu jóg ñëpp ñëw may la xaalis bi ngeen ne da bàyyi sa xel bi mu demee dem na ci ñooñ déedéet ba tey ma wax ak yow nii su ma génn ci mbedd bi am nañu may àndal de hmm. su ma génn ci mbedd bi man may ruus. ndax ñu may romb ay amateuru làmb papis ngir yàlla làmb neexatul ñëwal ñëwal ñëwal waaye du xam li ñu xam lépp parce que xam ma jógee sama combat coach dama feebar. dañ laa jàppoon mystique nga bëgg a wax. ëpp bi de dañ koo jàppoon mystique. non boobu sëriñ. boobu nekkaguloo sëriñ. déedéet. nit da ngay nangu ndogalu yàlla. damay jàpp ay doomu aadama bari di di la yóbbu ci àll bi faj leen. ñaata mbir laa fa faj te jàpp leen da bi ñoom daan la mel ni ñuy naan ne leen lii kër mosoo gis si doomu aadama waaw lu tax moom mu jàpp ma daan ma te mën ma wax dëgg kon man damaa soxor léegi sama dëgg laay bëgg di wax bàyyi dëggu jàmbur pour lan loolu. kon je suis très méchant damaa soxor naa xew loolu àdduna. mais est-ce que looloo tax gën a bàyyi nga gën a bàyyi làmb jàpp bi mu bëgg ci mystique bu baax a baax nga toog lu yàgg sentirutuloo sa bopp. fuju naa ci lu bari nag waaye mosuma ko ŋang kenn ci koñ bi fii mosuma ko ŋang suma waa dëkk waaye ŋang naa ko suma waa kër man waaye nag dëgg fu mu la fekk nga la fa bàyyi dëgg rek laa la wax de bi gis nga boo rey gañde hmm? bu la seeg reyee nga nangu ne seeg la rey bu defee rek yàlla sax moo lay njëkk nopal noppal maa ngi door ay doomu aadama di leen daan ñu may woo ma leen di faji doomu aadama daan ma ma feebar di ko nëbbu lu may wax fii ci ñi ma daan di wax tamit ci ki ma daan. dinaa ci ñëwaat xam naa ne dina xaw a jaxasoo tuuti ni nga daan jàppee nit ñi ci mystique bi ñu la ko jàppee nga yëg métit boobu ci yow nga xam ne kon man ni laa doon def doomu jàmbu yi naka lala def loolu. noonu defuma dara c'est pas la première fois ci man bëri simple laa xamee mystique bëri simple laa xamee yooyu yëpp. dañuy naan boo nekkee mbër. looy naan dama ko def diw. diw dafa la ko ba def lu raw ko raw. moo tax boo nekkee mbër. mbër buy wëy na laam bi buur la ku ci dee ñu suul. boo ci deewee. nañ la suul yi après ñu fàtte ko waa ah, làmb amaat ñu dem fee di ambiance làmb la. xale affaire góor la moom léegi ñu tëj ko. Hmm? làmb fi mu toll nii fi réew mi toll bu juum nga de xamoon tuuñaa suñu dëkk la dëkkoon le gaucher de Touña daa ñëw RNV ñëw la fees del nit la door mu dee ñu ne ko dootu fi béreti Touña ah non ah CNG wala lamb ji mu la nee bàyyil loo def. <laughs> Ah, waaye yow xooli métier nga naan dem toog. nga pour ñaanal mbëru làmb maanaam mbër yi fi nekk. sëñ bi loolu deuxième partie la. ñaata mbër ci làmb. loolu deuxième partie la. avant lii ma lii di fi mbéy bu mag. mu jàpp ne maa ngi ci àll ba te sama kër laa toog. te jox ma xaalis yu bari. te lépp laa ko wax. mu leer nañ. te noonu la tëddee noonu la daanee. waa la wax turam de. boobu yaa naa loolu dafa yàgg daaw rek la. waxuma la saison bi passé saison bi yàqu de daaw saison bee. ba ni làmb ji demee wax ko moom mooy daan. non moom ma njëkk a jox xaalis. mot na trois cent soixante quinze et quelque. mu jàpp ne maa ngi ci ba maa sama kër gi. mais boobu yaa non si ah tamit sëñ bi. Oh, sëñ bi nag gis naa lii. Mhm. nekkul sama bopp. daf may jaaxal sa lii. nii ni muy kii caméra daf may jaaxal waaye bu la yàlla may yéen nii. Mhm. naan yow ko amoo ko da jaaxal yow. yàlla mooy maye na Sénégal xam ne yàlla mooy maye sëñ bi mënuma toog fii toog sama pokus gii sama waa kër yëpp bitim réew sama yaa am na fi ay usine oto bi rek ñëw na fi deux fois tey ñëw na fi asa astafurla dem ak tey benn oto bi kese de mu bàyyi loolu yëpp toog fii après nag yàlla mënuma may dara bu doon xaalis kese kese kese. man dem liggéey fee wala ñaan ko sama booy yi am naa booy yoo xam ne su ma leen nee nangam hmm? lu tax ya sénégalais nangu na yàlla may ko xaalis waaye nangu lu yàlla may keneen comme par exemple yow yow nangu nga am ay nangu yàlla may ma xam-xam lu tax sénégalais bëgg a dundee noonu kon nañoo def soxor bon nangu boo tëddee di xalaat ay millions nan laay amee ay millions nan la ay yaram yàlla bu la ko joxee nga kontaan yàlla bu joxee kii lii nga ne déedéet ay fen. di wax ci làmb yi nga xamante ne jot na fi comme ñi ko ñenn ñi defee. man wax naa ko yow pare dootuma waxaat. li wax li ma wax. wax naa ko ci benn réseaux sociaux su ma waxatee fi mu nekk ay. ñu koy waxee ci français sax oh. damay répété. Mm-hmm. répétition lay nekk répétition lay nekk amatul am chance am nga seen numéro am na seen numéro combat bu am nga woo ma. man ma la woo damay ñëw toogaat ne la combat bi jibs na lan nga ci gis. waaw ah, bu la nee nga def loolu may naa la ko waaye damaa ne. Mm-hmm. combat day am semaine bi kii moo daan ñu de ba stade ci biir terrain bi. Mm-hmm. ñu nangu jël man li ma wax keroog ci beneen réseaux sociaux dem na ko mun naa la wax semaine bi kii mooy daan. terrain naa la yónnee message parce que foofu day leer nañ ke mootul génnee dara ma loolu laa wax. ci biir semaine bi ko tamit mën boo ma jour combat bi. combat bi nekk mun naa ne kër waaye dama la ne sur le terrain. déglu sama wax nag sur le terrain dañ ciy nangu dañuy nangu combat. voilà foofu laa waxee. waaw leneen. mais est-ce que Papis génn na ci làmb. ah déedéet mënumaa génn ci làmb ku ñaan kan doo génn ci làmb. waaye nag Leewtoo moom bàyyi naa ko. mën nañu xaar benn jour lamb bu mag am ñu jékki-jékki gis Papis def ko comme ni mu ko daan defee toog ci kaw tamit ba mu neex ko mu jug taxaw. Hmm. amateur yi gis ko mu wàcc. jëm ci tëggkat bi loolu mën nañ ko xaar ci Papis. waaye mën na ne. yàllaay maye. mais est loolu mënati nga ko Papis. Hmm? est-ce que loolu mënati koy maye. Ah. Hmm. a dem est-ce ko. yàqu man dama dama géwél te mën naa ko. fan laa jëm a mën a dama ko sëñ aw ma ñaari jabar ñetti jabar de. Hmm? fan laa jëm a mën a ko man doxuma bant de. du ma handicapé tamit de mën naa ko de. yaa ngi itam na force la. mën naa ko ba mu neex. nee naa la feccu feccu mbalax laa gën a mun làmbo man feccu mbalax laa gën a mun feccu làmbo. ak Pape Diouf. Hmm. ak Viviane ak ñaari góor ñaari jigéen. koo ma ci dem.